jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gàcce ngalaama maam Cheikh Ibrahima Fall Lampo mbokki amee internet yi ñu suivre ci Zarak Vision ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di ñaanal xalifatul am di tarixatil Mouridia Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér noonu lañ koy ñaanalee kullu xalifa ku fi nekkal diine nekkal fi lislaam mbokki am internet yi comme ñu koy defee ak yéen saa su ne tey ñu ngi fi géejawaay ñëw foyer waxi naan Nimzaat ñu ñëw seet si suñu mbokku taalibe Abakara Zikrullah mu war fi amal bis la 30 novembre bis boobu nag ci lañ dox jëm bëgg waxtaan ak moom naka lay waajee bis bi parce que fii ñu toog fi la bis bi war a amee waaye naka lay waajee ak waa Karaayis si mu doon bisu phénoménal ñu bëgg a waxtaan ak moom lu tax bis bi mu nekk bisu phénoménal dañ koy nuyu di ko siyaar di ko bàyyi mu nuyoog mbokki ami internet bi Aba maa lay siyaar di la bëggee. Serigne Fallou ñu ngi lay fay di la ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay. di wax jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gàcce nga la ma Cheikh Ahmadou Kara Mbacké norin waaw ginnaaw bi ñu sante yàlla sant ku tedd ki sëñ Fallou yow tamit ñu ngi lay sant bu baax maanaam ci initiative bi nga am ni comme ni nga ko waxee rek daanaka umpalewul ne ñu ngi waajal bis ñoo amaana moo sabab tey jii nii nga sàkku bii nii ngir ñu mën a waxtaan ci loolu nga xamante ne bi nii muy bis bi nga xam ne mooy suñu deuxième édition ñu ngi koy waajal nii waaw daanaka nag moom comme daaw ni ñu ko defee woon rek incha allah am na amaana bu ñu duggee ba ci biir émission bi nañ gën a yaatal ci maanaam idée beeg maanaam tamit li nekk ci biir yëpp ak li mu ëmb ñu gën ci xóotal daal gën ci waxtaan mais daal ñu ngi sant bu baax di santaat ku tedd ki bu wér a wér a wér di amaat mbégte tamit ci jotaay bi bu baax a baax a baax a baax. macha allah balaa ñuy xuus ci waxtaan bi rek parce que war nañu waxtaan ci bis bi waxtaan war nañu waxtaan ci bis bi ak li ko ëmb. ak phénoménal bi war nañ ci waxtaan mais balaa ñu ciy xuus rek nga am loo barkeelu ak téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo lay suivre. incha allah bi barakati Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni bismil ilaahi ci barke bi yàlla moom mi waral amuk lu mu mën doon tey dundu yàllaaw ba mu bindee leeru yonen Mustapha la amal leeru xaadim rasul caa ba yàllaaw bi la bindee shariatu muy yoon wi ñepp di aw bi mo bind ca ñañuy sété fa yàllaaw bu ne mu jox ay malaaka ordur mutlaqan ni leer gi féete kaw mooy Bamba yàllaaw bo ba batay ku fi bax mba ku fi talif ak man ahmadu ma jëloon fukki tuuram ya ak ñaar liggéeyal ko ca ak téere ba mu àgg yàllaaw téere bi war naa génn ren bu soxmaat sama tee ngir laa biye xam kanay Bamba yàllaaw li mu feeñee Sénégal a tax ñi ko xam bariwul bay gëstu ñeneen feneen ca yàlla digante mbake ak Mbusoo be Kankaak nemen sey leri lamp la ni lo fa ya ni tawa ilahi bon de seyri bi jahi yalla mo la taxañal yoonam wa Yàlla mbake de yow sore nga kuy ngor di wut lu mu am lu njeri nyaay ko ko mom li wor na Rabana bu fekke ya nuy teral fi ci lono lonu doli ci ay mayam ñu sant yalla irham jamial wara janga waxon de rëy ñu bëggoon sa yermande ci ñepp yalla bi barakati cheikh ahmadou karam sha allah mu melne air bi airu barzan wa air bi airu barzan la waye amna barzan bu ñu gëna min waye bi mom cheikh amadou karam mbake ni moko ci ku tedd ki cheikh amadou bamba khadim rasoul waaw ndax bee Serigne Moussa Ka moo ko defoon boolaate mawlid yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon di ci way ngeen ji mi def sallallahu alayhi wa sallam waaye bii nag moom Cheikh Amadou Karam Mbacké Noreyni da koo def uniquement ci sauveur de l'humanité mooy liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw daanaka nag mbokk taalibe yi ñi ko xaw a miin bëri nañ waaw bëri na ay air yu ci génn yoo xam ne da ngay dem ci cant gi dangay ngay dégg gars yi di ko sikar te ci biir barzan boobu lañ ko jukkee ndax dafa bëri air boo xam ne gars yi min nañ ko biñ naan moo tax ñu ñëw di jéem a def la waaja defoon yorut lu dul lenn jox yonen ba yàlla kon yàlla kay digalal malaaka yi nu yëngal aras aras di saabal ngir jëm mi bàmba yàlla boobu foofu la bokk ci ci barzan boobu lañ ko jukkee daal waaw ci lañ ko jukkee waaw ba léegi bu ñëwee ci nga xam ne tey boo xoolee mélodiquement gars yi dañ koy way nga xool tey karaayis yi dañ koy woy tey bu ñëwee ci mbindum sëriñ bi ci li mu bind ci olofal yi gars yi léegi dañ ciy vocaliser wu di génne li sëriñ bi di wax te yaakaar naa xale yi ñu ngi koy jël di ko wayal dëgg la ndax mbindum si Amadou Kara Mbacké Noreyni moom moo ko waxal boppam ndax moom dafa jël guddeem ak bëccëgam ak léppam di bind ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaw ndax moom li tax mu jàpp ne bind ci moom war na ndax dafa ñëw fekk ñu mel ne Serigne Moussa Ka bind ci ku tedd ki ndax gars yëpp sikarkat yëpp da ngay miin ci seen i seen i sikar ñuy way wayu olofalu sëñ Masam seex euh, sàmba Diarra Mbaye ak euh, Serigne Moussa Ka ak sëñ mbay Jaxate waaw seen olofal ñuy nettali fekkee ku tedd ki di nettali jaar-jaaram moom nag mu gis ne tey jii nii ku tedd ki si am na Bamba Xaadim Rasul ak jamono fi mu toll laaj na ñu am nuñ ko tegtalee ndaw ñi laaj na ñu am nuñ ko jàngalee ndaw ñi moo tax moom muy ñëw di bindaat nag ci ku tedd ki ba ci ñooñu waaye ñu woyoon sax da koy indi ci xeetu olof boo xam ne day yomb jàpp ci ci ci ci ñun goney taax yi pour ñu comprendre ko day day yomb ci ñun ndax baat bi mu ko kàllaama yi muy jëfandikoo day doon kalaama yoo xam ne ñëpp dañ koy mën a dégg ngir jàngale leen Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ndax boobu am na benn taalif bu mu naan ku tedd ki man dinaa ko jéem a xam ba koy jàngale ci araab wolof nasaraan ak angale moo tax ci biir taalifam da ngay dégg muy utiliser baatu anglais di utiliser baatu arabe di utiliser baatu espagnol sax wala olof bi nga xam ne ñun nasaraan ñun waa ndakaaru fii moom la ñuy ëpp la ñuy wax ama bokkut ak olofu kajoor sëñ Musaa Ka léeg-léeg nga jàng taalifam faw nga dem gis mag laaj ko ne ko fii taalif bii kat baat bii kat jaaxal na ma ndax boo mu mënoon leeralal mais raar na nga gis Cheikh Ahmadou Kara loo xam ne doo ko xam waaw ndax gune yi génération bi lay waxal pour ñu mën a xam Serigne Touba ndax Serigne Touba mooy sauveur de l'humanité comme ni mu ko waxee rek waaw moom ku tedd ki moo boromam moo ko jox ndigal na ko yow yëgalal jaam ñi ne leen yow yaay làquwaay bi yaay wéeruwaay bi ku làqu ci yow raw ku wéeru ci yow raw moo tax mu génnee slogan boobu Bamba doy na sëkk làkkuwaay doy na sëkk wéeruwaay nee na du ay waxam da koo nettali rek ndax Serigne moo ko wax te yàlla moo ko jox ndigal ne ko waxal loolu léegi nag xam bi ma xam ne Serigne Touba mooy sauveur de l'humanité nag moom kon foofu mu jóg nag dem ci mbindee fi xamal leen kooku ngir ñoom ñu mën a sauver moo léegi nag ñu suñu mission nag bu bindee loolu ba noppi war nañ ko jël di ko yaatal ndax moom bind bi la ci am mais léegi ñun ñi nga xam ne ñooy xor-xoral ci borom baat yi ñuy fexe nag ba ba kàddu yi ñëpp di ci mën di jot waaw ñu xool nuñ koy partager daal véhiculer ko ba ñëpp mën cee jot ndax yërmandey jaam ñi la daal waaw. macha mu mel ne ci olofal yi ba léegi tey bu ñu déggee Abba di jàng olofal bi wala benn xalil kara boo koy dégg day mel ne dañoo toog nii rek di waxtaan. te dafa nekk actualité. waaw ndax li tax mooy amaana kenn ku nekk tamit ak yow taalif bi bi nga koy jàng parce que dafa xaw a yaatu nag ndax sëñ bi moom dama maa ngi koy fàttaliku mës na génn benn jotaay mu ne bu kenn ne amatu amuma métier ñëpp ne tekk ba ci yàgg mu ne man sama métier mooy bind ci ku tedd ki te loolu ba mu koy wax ak léegi war na mat 15 ans te boobu ba tey mu ngi bind di denc li mu bind dafa yaatu léegi nag bëri ay fànn tamit am na ci fànn yoo xam ne day wax ak waa àdduna am fànn yoo xam ne day wax ak ku tedd ki moom direct am fànn yoo xamante ne bi nii day wax ci li ko ku tedd ki defal léegi ñun ñu koy jàng tamit war nañ di ko gën a di ko seetantal ngir gars yi ñi nga xam ne ñooy teewlu xam kii wax ak looloo waral lu ëpp booy gis si mbokk taalibe yi balaa ñuy tàmbali benn taalif dañ nan Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni nee na ndax yow nga mën a comprendre ne liikat lii kat mbindum Cheikh la waaw mais dafa bëri nag ay volets ndax am na si taalif boo xam ne day wax ak waa Sénégal am taalif boo xam ne day wax ak Moridi am taalif boo xam ne day wax ak waa àdduna am yoo xam ne moom li ko Serigne Touba xéwale ak ni ko ku tedd ki def loolu la ciy wax waaw léegi nag yooyu da ciy baax ñun tamit ñu koy jàngal jàllale ñuy siy fexee di ràññatle moom lim ci wax ndax am na si yoo xam ne sax ku tedd ki mooy wax ci biir na yoo xam ne moom Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul mooy wax. nga ñëwul ma ci. <laughs> waaw bi nii. loolu loolu Fallou lu yomb comprendre la ak lu yomb gëm la ndax deewaale day am deewaale day am ndax ku tedd ki sax da daan deewaale ak sunu borom bind ne sunu borom de nee na nangam moom nag ku tedd ki Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni moom ni mu mel ci Serigne Touba rek war na tax bu ne ku tedd ki nee na ma nangam loolu moom ku waa kuy boroom xel di seetantal waaw du luy forcer nit boroom xel mu sell rek di nga comprendre ndax ku tedd ki ba mu ne euh, sëriñ Khadim docteur. bi muy nettali si si taalif boobu maa ngi jéggalu tey nga ma koo nangul ndax waruma bind ci keneen ndew gënul ndax yow mi tax may niru kenn mbaa lenn te du ma ko woon ci yow rek laa war di wax yow borom kun fayakun waaw mu ne ko xam naa di nga ma ko jéggal ndax xam nga sama biir sa ne daa yaatu ba doo ma bàyyi ci biir li ma bëgg mooy ñëpp xam ne li nga ma defal dafa rëy du kenn mën ci doomam du doonul ndey te du bàyyi mu ne xaadim docteur maa ko ñëwee ndax géntam nga ci yow dafa géntoon nga ne ko dama laa bëgg def xarit ndem sëñ xaadim docteur moo gént ko tedd ki ne ko dama laa bëgg a def xarit waaw am na ñoo xam ne kon dangay mën a gëm ne sunu borom may na leen ñoom ñuy waxtaan ak ku tedd ki di deeyaale ak moom léegi nag moom ci biir loolu am na si yoo xam ne ku tedd ki la ciy waxal nii bokk na ci ba ci taalif bi mu naan man Ahmadou Bamba la yàlla tàllal boobu da ngay dégg man Ahmadou Bamba la wax waxul man Cheikh Ahmadou Kara dane man Ahmadou Bamba la yàlla tàllal yu baaxi saalixiin yàlla ma tàllal yaa ngi dégg mais moom mooy bind. <laughs> ci biir ci biir ci biir taalif bi ba léegi. am na fu naan Ahmadou Male moo mii. te liggéeykatam Male moo mii. waaw ndax boobu moom mooy taalifu martaba. waaw bi muy naan taalif boobu da ko tënkee Mouhamadou Mouhamadou la ko tënkee. mi jëlee miim bi da ne martaba ba yàlla jox Mouhamadou. Hmm. da ko donnaloo xarit ba Ahmadou. xataa lonk bi xam nga Mouhamadou da ngay def miim xaa dem dell mim dell xaalonk bi mu ne. xaadam dale bi mu ne xattaa mu am wusul am makaama boo xam ne moo gën a kawee moom maam Ibrahima beneen miim mu Muhammadu bi mu ne mooy gen yi mu zoxamaa ku tedd ki ku ko jëfal mooy fexe ba nga tekki ajib duwaa iyaa xalifal ardi maa la bëgg a liggéeyal ci bépp ardi deel bi mu ne donte dama lompoñ itam bu la neexee maam kàttan te lay liggéeyal ba ñëpp xam yaa ngi dégg mu indiwaat beneen miim bi nekkat Muhammadu mële moo di mi te liggéeykatam bële waaw mudd yi jeex ba bi muy mujj ci deel bu mujj bi mu naan ko du ma mën a dund ku dul yow amoo woon te doo too am yow a yow waaw léegi nag loolu fàllu loo ciy jàngee mooy moom saa su nekk foo mënti xool ci bindam wala waxam walla jëfam wala lu mënti doon ku tedd ki la lay joxoñ ci Amadou Bamba Xaadim Rasul parce que ñëwaat na mu ne amin sama aaruwaay man Bamba la sama wéeru wéeruwaay man kenn la pourtant waxul waxul waxul borom daaru borom daaru mooy maamam waxul nóoré ni te ñooñu mate nañ ko sëkk bu doon woyeeruwaay wala waaye rek ñooñu mate nañ ko ndax ñoo ko meññi kenn ku ci nekk doo du ku ñuy présenté ci Sénégal mais mës yow mii mës nga ko seetlu dégg ko mu tudd ku dul ku tedd ki waaw bañ na ko ba moom boo ko ñëwee di ko ñaanloo nii artistes kilifa yi yàgg dem ci moom di ko ñaanloo nii xam nañ loolu ci moom boo ñëwee di ko ñaanloo danaan la dénk naa la ku tedd ki moom nee na wóoluwul ñaanam léppam ku tedd ki ci lay tàmbalee ci lay kii waaw ndax moom mu ngi ci baatu sauveur de l'humanité boobu moom foofu la nekk te fa lay joxoñ jaamu yàlla yi moo tax bindam saa su nekk da nga ciy gis mu naan la mu lay joxoñ ku tedd ki rek même buy wax ci boppam sax nga defee ne day mel ni kuy bàkku wala lenn déedéet ne parce que dañ ne cant feeg nuruwul ak bàkku rek cant googu day des moo tax nag ñun nag suñu mission mooy saa su nekk fexe ba loolu muy sonn di ko di ko bind ci ku tedd ki di ci di di ci di tee ay kayit di bind Serigne tubaab bay tur xéwal xam nga yow bu la yàlla nattoon nag ñëw nekk benn ndaw bokk ci keppaaram ak foo mën a bokk sax dégg ci ay li muy way ci ku tedd ki loolu rek jar na man ak sama moroom ñëpp di ko gëstu ndax day tax nga xam Serigne Touba day tax nga xam loo xamul woon ci ku tedd ki sëñ bi forcé wul kenn ci boppam moom Serigne Touba lay jàngale moom nee na bambis mooy koo xam ne ku tedd ki lay dund moom kooku moo ko ñor soxlawul leneen léegi nag ñun nii dañoom am sens sens bi ñu am mooy ñuy jàllale ay kàddoom nit ñi di ko dégg ñuy am ci yiw bi ñeneen ñu koy dégg di am ci yiw bi ñun daal dañuy santaat daal waaw ci xéwal googu mu ñu defal ci ñuy mën di jàllale ay mbindam ba ñëpp di ci mën di jot ñu ciy ngaf-ngafi ñun daal loolu mooy sunu mission daal wax fa dëgg yàlla waaw macha allah noonu la demee Cheikh Ahmadou Kara tey 100 pour cent Kara la parce que 100 pour cent Kara ñoom ñoo woote ñu jëm nag ci bis bis bi la 30 novembre abaa defoon na ko daaw première édition ren deuxième édition bi mu ñëw mu tuddee ko guddi phénoménal lu tax nga ñëw ne guddi phénoménal waaw sëñ Fallou loolu moom dañu ci am mbégte bu baax ndax guddi phénoménal général Kara comme tur bi ni nga ko déggee rek ci sunu organisation dañoo am staff boo xam ne lu ñuy waajal rek dañuy toog waxtaan ci xool daaw la lañ defoon ak ren lan la ñu war a def apporter benn tuus toujours nag di topp tamit sëñ bi ak actualité jamono ñu gis ne dafa am benn livre bu sunu wayjur di soxna si sëriñ bi di sunu kilifa muy sox yaa soxna Dieng waaw defoon benn téere boo xam ne da koo bind moom ci Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni tuddee ko phénoménal général Kara téere bi daanaka def na bind na ko ay ati ati at waaye ci ndigal la doon xaar pour génnee ko waaye bi mu génneeg léegi matagul at suma juumul waaw bi mu génnee nag ñu gis ne livre bi li ci nekk ci njëriñ dafa bëri amaana bëri nañu umpale Cheikh Amadou ñoo xam ne ñu ngi koy xoolee bët boo xam ne ñàkk koo xam moo ko waral te livre boobu da jàngal jaar-jaaram jàngal la fu mu jaar jàngal li mu li mu li mu def jàngal lenn ci ay œuvre donte loolu sax mënul tënk dundam lépp mais li ci nekk dafa kéemaane riche bëri léegi nag bëgg tamit jaamu yàlla yi bàyyi xel livre boobu staff beeg gars yi waxtaan ne nañ tuddee guddi gi guddi phénoménal général Kara fàttali mbokk taalibe livre boobu waaw gën leen ci bàyyiloo xel ngir ñu dem teewluwaat ko ndax tamit dund dara ni am na solo du topp Cheikh Modou mais tamit dem à la ci ñoo xamante ne bi nii dund nañu ak moom xam nañ ko côtoyé nañ ko am nañu moom jaar-jaar di la nettali ngay dégg ñoo xam ne ñoo ko teewee loolu tamit daa gën a wóor te livre boobu loolu la làmboo ñu bëgg nag gaa yi gën ci bàyyi xel moo war ñu dippee ko guddi gi waaw mbokk taalibe yéene boobu lañ ci am waaw muy guddi phénoménal général Kara ndax Jakara moom yaakaar naa ne pour ñëpp la jamono bii Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni waaw du pour bàyyi daaru yi wala saabur saa yi ndax moom sax bañ na ko ba buy joxe dara ñaan wala lu mu mënti doon buy wax ay njëriñ du ko yemale ci njabootam moom da koy wax pour ñëpp ndax sinon kon li muy woote ne Serigne Touba sauveur de l'humanité la yërmandey jaam ñi la du am sens waaw bu bu ko bu ko yembalee ci boppam rek du am sens waaw moo tax da koy tasaare ba ñëpp jot ci moo waral nag guddi gi ñu dippee ko guddi phénoménal général Karaar te dina bëri nag ay surprise incha allah waaw incha allah ñu ngi ciy waajal yu yu bëree daal yu bëri daal incha allah ñu ngi ciy waajal yu bëri. ñu gis ñu gis boobule yaa ngi ci démarche yi yaa ngi dox mbokk taalibe yi muy gën a yaatu ci ñoom ñëpp di posé affiche bi Abakara le 30 novembre. waqi naan nim zaat tey bis boobu noonu lan lañ ci mën a xaar ci wàllum zikorulaa ci wàllum loo xamante ni si tey dinañ ci gis loo xam ne lu mucc ayib lay doon waaw incha loolu moom suñ fàllu waaw dañuy jox ñëpp rendez-vous la 30 ndax comme ni nga ko waxee moom daanaka daaw su ma jumul moo nekkoon suñu première édition waaw def te lépp tamit dañ koo tegoon ci liggéey boo xamante ne bi nii ak ànd kook mbokk taaliba yi comme ni nga ko waxee lépp lu mu laaj ci coono ci répétition ci jox ko akam biñ ko wara jox wax deug yalla mbokku talibé duñu bay dara ndax tamit boy déplacer ay doom adama di len wo ñuy bay seen yité bu ñëwé nga len mëna présenter lo xamné bo len dañuy sawar comprendre nga légui nak do def ben édition nak waaw gaay yi apprécier yow mom bu boba ya dugal sa bop moy yow waro defaat moy ko lool waaw supérieur lool da nga wara def lu supérieur lool mo ndax ñun mom fimu toll ni mom nelawatuñu waaw daanaka lekatuñu ba sour saa su nekk ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi xool nan la ñuy fexee indiwaatal mbokk taalibe loo xam ne ak jullit yi loo xam ne buñ ñëwee dinañ ne ah ñun kat déplacé wuñu ci zéro daal waaw si diggante nag zikrula taalif yi waaw bëgg nañ si innové wane ci loo xamante ne bi nii daal wax fa dëgg yàlla ku fi ñëw sa xool dina sedd di nga dund ku tedd ki di nga dund mbégte waaw wax dëgg yàlla waaw waaw. daaw da indi musical bu doy waar. indi instruments yi yéeme zé ci loo xam ne sànq rek bi may ñëw am na mbokk taalibe bu ma déggool ma ne ko damay jëli abakara mais moom li nga woy ci Azayn Ndiaye Ousmane loolu ba léegi daa am lu muy def ci moom musique boobu noonu loolu su ma sañoon balaa ñuy dem nga barkeelu ci am loo ko baaxee mais loolu dafa doy wax waaw comme ni nga ko waxee sëñ Fallou loolu moom mooy comme li ma la wax rek ñun dañuy liggéey nekk ay ndaw di jàng nekk ci ay keppaar fekk fi tamit suñuy mag di jàng ci ñoom waaye ci kaw jàng bi tamit métier bu nekk même boo ñëwee di jàng yow da ngay jéem a xool lan laa ci mën a apporter maanaam doo ñëw rek di jàng ci sëñ Fallou mi jàng ci nooree ni waaye danga nga ciy boole tamit di xool yow man lan laa ciy mën a apporter loo xam ne dinañ ne eh, lii kat am na avancement am na amélioration waaw ndax ñun moom boo xamee géejawaay xam fi ñoom Lamp Diall xam fi mbokk taalibe ñoom Xalil xam fi gars yi yàgg fi def façon concert bu nekk joué fi lu ne ñun ñun defaguñ fi ñoom luñ fi deful. waaw mais ñaan nañ yàlla nag aj baar bi ndax tamit ñoom it loolu mooy seen ndam mooy ñu bàyyi fi seen i ndaw ñu ñëw am beneen innovation buñ ci yokk loolu moom sëñ Fallou boo gisee liggéey la boo xam ne saa su nekk ñun suñu nattu mooy amuñu beneen bëgg-bëgg bu dul di xëy ci liggéeyal sëñ bi à travers li nga xam ne mooy Zikrullah bi xool lu ñu koy améliorer moo tax fu ñu toog ñu ngi xalaat lan la ñuy war a mën a apporter lan la ñuy war a mën a def ba gars yi buñ ñëwee rek seen xol sedd ñu kontaan nu ñu ko mën a xalaatee rek dañ koy xeep lu mu neex neex neex dañ koy xeep parce que dañuy jàpp ne maanaam saa su nekk rek war nañ mën a indil gaa yi loo xam ne lu mucc ayib lay doon boole ci tamit di jàng parce que musique tamit du lu ñuy improviser musique tamit lu ñuy jàng la donte am nañ ay kilifa yoo xamante ne bi ni saa su nekk dañuy dem di leen côtoyer di leen laaj ñoom it ñu ñuy gàgganti beneen yoon defeel ni beneen yoon euh, waxeel ni waaw parce que musique loolu la au fur et ngay dem da ngay jàng te zikurulaa bi tôt ou tard day jaxasoo ak bi waaw tôt ou fa la jëm. mi ngi ñëw sax waaw fa la jëm ndax sëñ Fallou loolu li koy dëggal li koy dëggal mooy ay jamono yow géejawaay nga dëkk ñun géejawaay lañ dëkk ay ndaw lañ ay jamono daanaka musique moo gënoon am doole que zikurulaa waaye da gis ne sëñ bi li mu bëggoon ci bi muy yaatal zikurulaa tey am na ci am na ko parce que da gis kuy def anniversaire wala kuy réception xew sax woo Baay Faal yi yi ñëw. sikaral la fa tuddal la fa yàlla nga am ci mbégte am ci ay tiyaaba te loolu da ngay gis ne liggéey Zikrullah moo ko fa yóbbu dem na ba ñu nga gis jeunes yi sax ñi ciy teewlu musique bëreetul waaw te da ngay gis ne loolu xam nga lu am solo la waaw mais ba tey am na combat bi yamul foofu parce que lëndëm la mën nga ne combat lumière la ak ak ak leneen lu dul lumière waaw léegi nag ndem nag musique dafa am ni ko sëñ bi waxee woon dane mélodie àjjana la dëkk rythme moo dëkk feneen fa waaye mun na nag ñun fépp foo xamante ne bi nii moom moom nga xam ne mooy kàccoor bi di ki ñuy rëbb ki dafay jaar di di di jaxase xelu doomu aadama yi di leen jëmee fii ci naka noonu ñun nañu fexe ba jaar foofu wëlbati jaam ñi yóbbu leen ci ku tedd ki kon loolu day aajowoo ñun ñi nga xam ne sama mbokk sikarkat yeeg ñeneen ak ñeneen ñu gën a dem gëstu ji waat loolu waaw ndax tamit da ngay déglu jamono ji yàggul dara rek am na benn mbokk taalibe euh, te mu yoroy akasa am na benn single bu fi def mais wax ji ku ko déglu day dugg sa xol te pourtant musique la te pourtant am na ñoo xamante ne bi nii portée bi mu am bu doon ci xiin kese la yemoon doom am boobu mu am ah, kon nay gis ne kon xam nga loolu am na solo waaw moo tax man damay ñaanaat sama mboqu si kat ka dégg ñëpp ñu demaat gëstu ji waat instruments yi ndax boo woowee nit ñi ci concert tamit war nga leen mën a apporter dara boo xam ne bokkut ak lañ daan gis ci cant yi war war nañ gis tous bu bees daanaka day xaw a daal mën nañ xaar lu ne waaw waaw seen bi waaw xaar lu ne ci kaw seen bi moom incha allah ndax moom mbokk taalibe yéene bi ñu am mooy wax fa dëgg yàlla ku ñëw mooy li ñu wax rek ndem daaw gars yi nee nañ baar bi loolu mooy challenge bi waaw ñun moom nañ bàyyi bala 30 daal surprise mosol ñu ci xaar waaw yi moom mu ngi leen di xaar comme li nga wax rek agent bi moom air la boo xamante ne bi nii dafa am sunu benn mbokk taalibe boo xamante ne bi nii moom élément jeesun la moom tamit yàlla may ko trop wàllu musique mu ciy gësu di ci dox air boobu moom ci moom laa ko déglu njëkk a déggee mu way ko ñun tamit ñu bokk Azaim moom bokk na daaw ci orchestre bi bu ñu joué ma ne ko son bi foo ñu mottali ko ci morceau yi ñuy way moom tamit mu rafetlu ko am ci mbégte bi ñu ko joué tamit jox ko ñi nga xam ne ñooy musiciens yi xam nga ñoom it dañoo am seen bagage bopp ñoom it ñoom it ñu am nañ ko xaw a kiiwee moo tax mbokk taalibe yi ñëpp sentir ko ndax musique loolu la musique la daal waaw noonu la demee daal parce que morceau bi mu ngi ciy wax naan zayim njaay usmaana way naa la defal nuuru jalaala yow zayim njaay usmaan man way naa la sañ-sañam ba ca moomee lu ci seen yoon loolu la wax waaw <laughs> na la demee daal loolu waaw dafa am solo waaw. am naa mbégte ak kontaante ci yow bis bi bu dee am na ñoo xam ne tey du ñàkk ne ñi ngi ciy jàpp wala am na ñoo xam ne bëgg nga leen ci woo loolu leen waaw bis bi moom Serigne Fallou daanaka ñu ngi sant mbokk taali bi nga xamante ne bi nii ñoom lañ ko àndal duñ leen sant sax ndax daanaka ñu leen santee sant suñu bopp la comme ni nga ko xamee rek guddeeg bëccëg suba ngoon ñoo ciy nekk ñoo ciy nekkandoo ñooy xëyandoo guddi ñu ñaan ku nekk dem dallu ji bu ñu xëyaatee suba tamit nekkaat ci ñoom ñëpp. waaw mission bi tamit yow xam nga ni mu demee Serigne Fallou maanaam laaj na ay jàppale maanaam boo ci wéetee rek amaana yow loo am am talent wak wala lu mu mënti demee du dem foo mu am ñu si jàpp ñoo xamante ne bi nii ñoom ñooy tax mbir mi mën a dem ndokk nag bi ñu boroom sukóor yi booleeg ñoo xamante ne bi nii ñoo benn lañ daanaka waaw sotti seek def si la ñoo bokk li ñuy yëg bokk li ñuy dox bokk ñu bëgg bokk fi ñu jëm waaw di ñaan nag Cheikh Modou Kara Mbacké ni ñagal ñu boppam rek beneen bi mooy ñi nga xamante ne bi nii tamit ñëpp ñi dëkk géejawaay doon ay autorité ak fu ñu mënti féete waaw ñu ngi leen di woo te ñu nit ay jeunes lañ dëkk ci dëkk ci gox bi doon ay jeunes yoo xamante ne bi nii tamit amaana mënoon nañ taxawee comme yeneen jeunes yi ni ñuy taxawee waaye ñun ndokk yàlla dañoo xiir ci leneen lu dul li nga xamante ne bi nii mooy dimension culturelle ci la ñu borom bi xiir muy saa su nekk di daje di jéem a organiser ay set setal ak ay don de sang ak ay désert base ak parce que sëñ bi ci loolu la ñu yar waaw ñun bu ñu gisoon ku mer sax nar a déconné sax dañuy ñëw waxtaan ak yow ah tey nga def nangam parce que ku tedd ki loolu lay jàngale te sëñ bi loolu lañuy ñuy fàttali kon jeunes yu amee noonu boo leen amee pour man ci gox ak kilifa boo mënti doon war nga leen gestu jàppale leen ndax jeune moo yore développement dëkk daal ñu ngi tàllal ñëpp loxo képp koo xam ne daal mën nga ñëw soutenir ñu jàppale ñu ñu ngi lay tàllal loxo di la woo daal ngeen ñëw soutenir ñu sëñ Fallou ñoo gën a bëgg sëriñ Fallou ñoo gën a kontaan yow moom wax fa dëgg yàlla dañ lay beral ak cant ndax saa su nekk nii lañ koy defee laataa sax ñuy taxawal bis nga ñu njëkk dalal ñu waxtaan ci wàllum zikrullah yaatal ci lu bëri te yow it bi ñu la xamee boobu ba léegi fu mbokk taalibe yi ti taxaw amoo ci xàjj ak seen yaa ngi ñëw di leen jàppale di leen wane yéene boobu nga ci am nag yàlla na la suñu borom kàttanal ba yow la nga ca bëgg rek nga am ci lu faw sa njortu daal am ci ay ndami ndami ndam ci barke bi ku tedd gi te day am incha allah ñu ngi lay béggee bu baax sëriñ Fall jërëjëf noonu la demee Abakara ñu ngi koy béggee bu baax moom it di am kontante ak mbégte ci moom di leen wax ni noonu la demee le 30 novembre ñu ngi ci woo kull koo xam ne yaa ngi dund kalimatu xaq kull koo xam ne sëriñ bi mu ngi nekk sa xol nga koy savouré ñu ngi lay woo fii nga xam ne fi lañ defee émission bi muy foaye ji pop bi ñu ngi ciy woo kull mbokk taalibe ñu ñëw ànd ak moom ak bis bi wax naa leen ko fi mu toll nii bis bi ñëpp moom la ñuy waxtaanee kon ñu ngi leen di jox rendez-vous le 30 novembre incha allahu rabbi Baye Mass moo nekkoon ci cadrage bi ñu ngi koy béggee bu baax di ko kontaanee jaajëf gars yi